fii ci El Vision ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen wax nag ni leen ko doon waxee saa su nekk ci seen émission spéciale plateau réservé pour les jeunes talents dooratina nag fii ci El Vision Médias ndaanaan boo xamante ni tabarkàlla kenn dootu ko présenté ci askanu sunu gaal di Maxuja Maxuja nag di ndaanaan boo xamante ni xam naa bu nu gënee yaatal bu soobee yàlla di ngeen xam kan mooy Maxuja euh, sang bi nuyu naa la baax a baax. Xadim maa ngi lay fay. ci loolee ci loolee la baal àq. aco nuyul askan bi lay seetaan. ah maa ngi nuyu waa Sénégal. Mhm. di nuyu monde entier. Mhm. di nuyu waa adduna. Mhm. di nuyu fans di nuyu suma yaay di nuyu suma papa. bàyyiwuma kenn ku lim juum. maa ngi fi nag ci kër gi ci daara ji. El Vision Média El Vision Média. nga xamante ni temps yi moo xew ci réew mi. non yéen a xew ci jamono yéen a xew ci moom ma xewee noonu ngeen xewee. non ku ko li ma xewee noonu ngeen xewee.

nekk nekk nekk nekk nekk nekk nekk teer ba benn instant mu bàyyi ko nekk ci danse bi. Hmm. jaar naa fu ne nag ci danse. foo foofu yëpp daal jaar nga ci nekk nga fi tailleur nekk nga soudeur ak mécanicien yow dafa mel ni kon jaar nga fu ne avant nga ñëw ci danse bi. waaw parce que non jaaruma fu ne sax mais xam nga ndaw moom bu la yàlla defee góor rek. Hmm. sonn nga dëgg la di nga jaar ci bëri. di nga hmm. jaar ci football. di nga jaar ci yeneen ak yeneen. teer bi. sama papa moom ma ci dugaloon. parce que ñëw. ba tey damay ñëw. Hmm. waaw mais nag yaakaar naa dina métti soo bëggee boole danse beeg dem répétition yeeg affaire yu bëgg di boole métier bi te euh, place boo nekk ñu dàq la dem dina am fooy toll dafa am buy demine. ok bu ñëw bi demine. Hmm. ma dem ci ñëw bi bu aar bi demine. ma dem ci aar bi ba tey ñu dugg ci aar bi waxtaane ko fas yéene ko yaatal faram fàcce ba ku nekk mën see jot sa wàll euh, ma xuja tey ñu dee waxtaan ci aar bi yaakaar naa ci danse la la nit ñi euh, lan moo la dugal ma dama judd rek man macha allah man fecc mhm. depuis bi ma nekkee xale. Mhm. ba ni ma nekkee mag. depuis bu ma sentiree bi ma nekkee xale dama doon tàcc may fecc boobu maa ngi nekk ci booy. ok may tàcc may fecc. Mhm. après bi ma demee ba yàlla def ma xaw a xàmmee. xaw a xaw a ràññee. di gis moom papa Ndiaye Thiou suma mag jooju maa ngi koy nuyu bu baax. ak ñoom Amady ak ñoom Amet. xam nga di fecc lu nice ma di suivre. ma dem papa Ndiaye moo tax ma bëgg fecc. ok papa Ndiaye Thiou moo tax ma bëgg fecc. moo tax ñu bëri. ñu ñu xuus ba ci kat. waaw fi nga jëm noonu xam naa ko. incha allah dinaa fa dugg après ñu ñu ñu gën ci yaatal mais yaakaar naa danse bi moo la indi Dakar. non waa la indi Dakar danse bi moo ma ni Dakar te bi may ñëw. Mhm. maa ngi tàggu sama papa na ko damay dem ñawi. Mhm. loolu laa bi nga ñëw Dakar bi nga ñëw Dakar. da nga koo dóor da nga koo dóor na ko peer. dafa am sama benn xarit xam nga su bàyyi bëgg xaalis. <laughs> waaw ma ne ko dafa am sama benn xarit bu nekk Pikine. Uh-huh. te nee na te yaakaar naa ne li mu bëgg mën naa ko koo defal. Mhm. weer wi dee dina ma may dina ma fay cinquante mille. Mhm. sama papa ne ma nga ne kañ lay dem ma ko xam naa suba. incha boo ma ñaan ne rek ma dem. Ah. maa ngi fàttaliku bi may ñëw maa ngi yor mbuusu mbuusu bu waaw mbuusu waa dëkk ba mbuusu waa dëkk ba mbuusu bu rëy damaa paas ñëw nag. Ah. waaye damaa paas ñëw def mbuus. Mhm. gàddu wàcc buntu Pikine. bu ñëwee ba buntu Pikine ci laa dugg ci. waaw laajte ba xam fi nga jëm. ba ma jëm. mais ba tey euh, ci biir loolu ñu gis la ngay ànd ak euh, Papa Diouf euh, di ko feccal sa relation ak Papa Diouf avant ñu ñëw ci Papa Ndiaye lan moo la boole ak moom. waaw Papa Ndiaye Papa Diouf maa ngi koy sant bu baax moom tamit di ko gërëm. Mm-hmm. parce que yaakaar naa ne su ma egsee fii tey lu bëri jàpp ci suma carrière. Mm-hmm. parce que nit ki moom teg la ci wetam rek. Mm-hmm. am na ci fa nekkoon. ñu doxal. des fois Papa Ndiaye woo ma ma jàppale ci yenn conseils yi des fois Papa Ndiaye woo ma ma jàppale ci yenn émissions yi. des fois papa yaay woo ma dafa koy jàppale ci concert yeeg yi. Mhm. après bi ñu demee. Mhm. ba xam ne instant bi mu ngi dem Angleterre. Mhm. war fa duré benn temps. mu xam ne kat moom ni mu mënoon. ni mu ko mënoon. ma ko jëm mën na ko. après ci la ma boolee Pape Diouf ma dem di jouer après def naa dama jouer ñaari soirée ma arrêté. dama jouer ñaari soirée après ma arrêté. parce que dama doon jouer xam nga jouer bi. fecc bi dafa nekk ni nga xam ne dafa metti dafa nekk li nga xam ne dafa metti après ma jiyee bi ma jiyee première soirée. deuxième soirée. gisuma ci ma dem toog reculer. après à la fin ci laa dem toog un an. daw ma soirée Pape Diouf. sa bopp bi maanaam dañ la dul fay cachet wala wala wala gars yi dañ lay siis wala nekkin bi laa neexul foofu. wala du question du question du la fay cachet xam nga pour boo fay soog a ñëw. Mhm. day metti bu la ngay doon bu la ngay doon. Mhm. bu la ngay doon wala rouge. Mm-hmm. après gisuma ci sama bopp ma toog. Mm-hmm. nga toogaat boobu pareegu ma. ok mais mais Makhoudia après bi nga paree delluwaat ci danse bi ba yàlla def tour bi commencé génn ñu naan ma Makhoudia concurrence bi ci biir yéen fecckat yi euh, ak ñi nga xamante ni ñooy say grand ngay buuxante ak ñoom chaîne bi maanaam metti na quoi ma Makhoudia. mais xam nga bu fekkee <coughs> dëgg bu jotee da nga koy wax. Mm-hmm. grand yi ñoom ñoom ñëpp yéen ñëpp yéen ñëpp laay wax. il faut ngeen bay booy seen sens.

parce que ñoom ci seen bopp. Mhm. déggoowuñ jubawuñ. ñoom grand yi ñoom grand yi. ok déggoowuñ jubawuñ. Mhm. Sénégal fii. Mhm. duñ fi lam-laamee dara. dëgg la dañuy wax lépp. dëgg la yi nekk ci kaw. parce que boo xoolee ah dafa yàqu. fekk mi dafa yàqu. wéy bi yàqu. xam nga li ci yàqu dafa bëri. divergence moo bëri parce que booy xool au début Papa Ndiaye tuula woon Ahmed Badiane ah. gars yi mais après da dem ba ci biir gis. Euh, gis ay mbojo mbojo waaw. ay ay tuxaaxaa. ay ku nekk ku nekk ba pare na yéen gars yi yéen laay waxal. Mhm. il faut ngeen may booy seen sens. Mhm. da ngeen fi nekk juga fi. ñeneen mhm. ñëw parce que ñeneen ñoo fi nekkoon ngeen jëlee leen fi ñoom ñu ñëw. sauf ñun ñii. dañ fiy jugee yeneen ñëw. te yaakaar naa ne liggéey ngeen ci aar li nga xam ne macha allah. wan war war leen koo ñaawal. war ta ñaaw lépp dafa war a rafet. parce que tey bu ñu demee ba fecckat ñu koy woo kii bi. nga laaj temps nga laaj nga ne ko danga may fay temps man. am na kii yu bëri dama koy delloo xam nga moo tax ma koy delloo mm-hmm. parce que dañ may woo na ma clip baa ngi nii mm-hmm. ma ne ko grand wala ku baax walla jigéen bi wala soxna si ku mu ci mën doon mm-hmm. ma ne la dama bëgg nga fay ma temps ma def déguisement ak sama groupe bu fekkee mënoo nga fay ma li ma la laaj mais léegi da ngay fecc kii naan la yow yow sax yaay génn sa xaalis di ci def di ci def c' est parce que concurrence bee tax waaw ku nekk da bëgg a feeñ. mais loolu yooyu. mais loolu jëmale aar kanam. Mhm. parce que ñun li ñu am nii mooy suñu métier. Mhm. li ñu am nii mooy suñu métier mhm. fu ñu dem partout dans le monde moo ñu fa yóbbu. kon nañ ko war a respecté. dëgg la mu ngi noonu ba tey yéen a ngi ci seen eh, émission spéciale plateau réservé pour les jeunes talents tey nag ma dalal fi ndaanaan boo xamante ni si tey ku dégg ku déglu rek eh, di nga dégg ba tey ci biir concurrence boobu noonu ak eh, ak grand yi dafa mel ni que tamit am na ay clan yoo xamante ni si ñoom dañ koy dugg ci seen biir ñoom ak ndaw ñi mën naa si sax ñoom ci seen biir maas ñoom bi quoi. maanaam ñu nekk ci kaw ñu nekk ci kaw bëggul ñu nekk ci suuf fekk si leen ok ñoom a lekk ba ñiit bool bi soog loolu mënta nekk mhm. àdduna loolu mënta nekk ñii dañuy ñëw mhm. ñii puus ñii ñëw mhm. ñii dem ñi puus ñii ñëw ñii dem ñii ñëw ñii dem ñii dem ba mu loolu mooy àdduna bi mooy àdduna mais ba tey tamit euh, am na grand boo xamante ni foog ma laaj la ci ay mbiram dara mooy nga xamante ni Papa Ndiaye nga xamante ni ñii ñu ngi naan sa mag la ñi naan du sa mag xam nga werante bi ak yéen ñaar seen concurrence tamit ci danse yi parce que des fois euh, dafa mel ni yéen ñaar tamit am na lu ngeen di xëccoo tuuti tuuti ma ko jël Papa Ndiaye xëccoowul hmm. Papa Ndiaye kooku maïs la. Mm-hmm. kooku xëccoowul. Mm-hmm. mais dama fekk ne. Mm-hmm. dafay nekkoon. ci ay génération mu dàq fee fekk. man sama génération ma dàq fee fekk. loolu dëgg la. non loolu yàllaa ko def. Uh-huh. man waxuma ko sénégalais ñoo ko wax. man waxuma ne loolu sénégalais ñoo ko wax. ba pare tamit doomu aadama yi. maa ngi sant bu baax dina gërëm gis naa seen cofeel ci man mhm. gis naa ni ngeen mel ci man mhm. gis naa ni ngeen ma bëggee gis naa ni ngeen ma fonk gis naa ni ngeen ma wóolu mhm. mais Papa Ndiaye moom moom di feet maa ko daa ko feet ah mais nga teg loolu fan ma ko ah, Papa Ndiaye hmm. samay feet lay feet ah ci say création yu ci samay création ci lay ci lay ci lay ci ci lay waaw mais pourquoi kon mënut a toog bàyyi la nga def ah mais nag mu ngi toog de hmm. parce que boo xoolee Papa Ndiaye léegi feetatu day miime rek day miime rek léegi feetatu ok maanaam ñu gën a alkaati Dubaay dóor quoi. te am nay temps am yu bëri ñu ñu doon jël. mun nga waroon na fay deux ma ne mokk jël yi dama que gis naa sa talent te war ngaa mais daal mais daal en tout cas temps jot na pour ñu dem bàyyi la ak dafa jot. ok mu ngi <laughs> parce que Xaadim. Mhm. man dafa am lu ma metti ci Sénégal bi barki alxuraan. waxal euh, télé dama damay bàyyi fekk adduna lay dégg fi mu toll nii dama damay bàyyi fekk parce que xam moo tax. 2014. bu ñu fay teg clip yëpp ci Sénégal. Mhm. ma fecc ko. Mhm. grand théâtre yëpp yi am. ma fecc ko. année bi jot. ñu jox maire journaliste raaya. di jox maire animateur raaya.

am na keneen ku ñu ko jox mm-hmm. mais joxuñu ko kenn. mu ngi noonu loolu nag mu nekk message boo xamante ni yéen ñi nga xamante ni yéen a organisé loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ndax ñoom ci société bi lañu bokk ba tey ñu ñëw nag ci suñu deuxième partie laataa may woo ki nga xamante ni si moo de Diop nga xamante ni demal nañu fa nga dëkk muy euh, parcel ak euh, njaareem ga nga xamante ni fa nga jógee indi fa ay yóbbante yoo xamante ni sa waa sa waa gox ñoo ko ko yóbbante incha allah mu ngi ñuy fekk si léegi ci mais ci loolu ma xujja dégg naa léegi tamit yaa ngi ci biir euh, taasu bi ba am na single boo xamante ni jot nga ko génne instant bi

ok muy xaax mooy piccu xaax. waaw waaw waaw ci laa jël inspiré wu ci parce que moom bu ñuy naaw des fois lëndëm ji day lëndëm mhm. ñuy def ne mhm. jabar ji aw ne ak doomam mhm. yi. moom mu aw ne ak i xaritam. ok léegi bu demee ba gisatul. danaan cuxaax. ok mu ne ko xaax. xam ne moom côté bee. ok ñu dafa am kon ñaari message yoo lancé ci biir. ma lancé ci biir mooy jigéen ju sëy bañ war koo gërëm. parce que maa ngi naan soxna ak jëkkër war a réeroo ba war a ba war a gisante. parce maa ngi naan. sëy nga sëy bu rafet mhm. boo déggee li moom xam nga sëy nga sëy bu rafet boo mhm. xoolee ma mère xam nga sëy nga sëy bu rafet mhm. boo xoolee moom xam nga sëy nga sëy bu rafet ma sama jabar gi ci kër gi jaaxal na ma nii laa ko xamee ñetti kilo ceeb ñetti saaku pompiteer boo péter goy teew ñu daal di bëggee bébé ajjanaay sa kër euh, bi nga def la deuxième single bi moo nekk célibataire waaw célibataire dama ko dund euh. ma ko dund yaa ngi ci ba léegi maa ngi ci ba léegi. Hmm. dama ko dund. waaw kon kay war ngaa mën a wax ci célibataire yi lu yaatu. dama ko dund dafa métti. ok mu nekk euh, sa deuxième single yaakaar bi tamit euh, defar nga ko xam naa ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan yéen seen clip bi noonu gi mu nekk euh, ma xujja di boo xamante ni kenn dootu ko présenté ci Sénégal kon nag ma woo sama sama naataango joom mu fekk ñu ci kaw plateau bi indil li nga xamante ni si moom la ñu jëlalee te nga xamante ni moo di parcelle. waaw sang bi nuyu nañu la. yaa ngi am jàmm sama estaar a ngi nii. ça va yaa koy neexal de waaye tamit kenn du yow xarit. waaw waaw xarit maa ngi lay ziar. ba tey Diop maa ngi lay nuyu di la ziar di la jàmm di ko sàcc yaa xam naa tey wàccoon nga ci terrain bi am nga loo ñu jëlal fi nga xamante ni si fa la mboq jël yeewoo. dëgg la dëgg la demoon nañ fii ba euh, parcelle. Mhm. seeti ji ay mboqam. Mhm. seeti dëkkandoo yi am di jàmm yi. Mhm. mais bi ñu demee waxtaan nañ ak ñoom. Euh, ma ko mm-hmm. man balaa ma lay posé benn dama lay nuyu ba pare. Mm-hmm. maa ngi lay daal jàmm fii ci El Vision. maa ngi lay fii ci El waaw dem nañu foofu waxtaan ak mbokk yi. Mm-hmm. mais quelques xale yu jigéen yi ma dajal ak quelques xale yu góor yi ma dajal waxtaan naa ñoom. ñoo leen laajee ma ko jël nit ki ci koñ bi naka la demee. mais daal euh, dégg naa ci lu ma neex naa ci ma neexul. ok mooy que li ma naqari laa njëkk a wax nag balaa muy tudd leneen. mooy que ma ji ma ko jël euh, ci koñ bi lu jaay taar nekk wu ci koñ bi ah loolu may wax ah du samay wax. Mm-hmm. di ñor di affaire yooyu lu dul doxaan. ci mm-hmm. xale yi. Mm-hmm. vraiment xale yi say xarit lañu. Ah, pour man nag ay yàlla dañu war a dund ak ñoom leneen bokkul ak loolu moom lañu def. daanaka man mbiru ma noonu. Ah. xam naa ki nga dajal dafa fekk rek nga dajal sama noonu. man ku ma gis xam ne wala wala wala mu dajee causé wala ki nga xam ne. dafa ma nopp te nopp ma. est-ce que du yaa est-ce que du yaa seere non non non dama daj dafa daje ki nga xam ne. moom moo ma nopp te ma nopp ma ko parce que man jigéen ñi dëgg la de ñoom ñooy ñooy neexal kër gi bu ñu fi jógee kër gi wér waaye man talu ba leen de hmm. liggéey bi laa gën a tal de hmm. liggéey bi laa gën a concentré wu hmm. te jigéen ñi dëgg yàlla na ko jëf ba tey mais rek des fois succès aussi dina la def loolu sa jiw surtout dina la changé dina la jubloo ci yenn yoo xamante ni doo ko sa changé parce que ay boo nekkee ndongo daara yaay daara def la def sept ans daara mënoo xam nga moo tax mënoo changé parce que sa xol dafa toj dara du la metti dara mënu la fere gañeente man adduna bi yëpp danaan Moukoudia dafa baax Moukoudia dafa oyof gëmul succès mm-hmm. man yooyu ñëpp la doon e-, ko mm-hmm. yow ma toog xàmme woo ma mm-hmm. parce que ma toog kuut man yooyu man man moom maa dama bëgg man taalibe rek parce que yàlla suñu borom moo ne wàccal sa bopp ba ci suuf ma yëkkati la ba ca kaw yàlla moo wax loolu su may wax de. Mm-hmm. yàlla suñu loolu. Mm-hmm. waaw waaw waaw bi ma la tàggoo noonu naa dangay ñibbi boobu ba tey doo ko de. Mm-hmm. ci biir ko bi di xool. ah bon waaw maa ngi leen di xool. yow daa am na mooy jinne koy bi ma demee bi ma demee ma demee tamit seeti naa euh, may laaj bi ba la ñu am ak yow affaire yooyu mais may ne euh, mu xuj daal euh, dafa teg boppam moment bi ñu fu mu yeggul parce que ñun sax. ñun ñoo xamante ne ñun dañoo bokk aar bi. daf ñu ñëdd loo xamante ne ñu nekkul. ko jël man yooyu yëpp jaaxal ma déggoon bu ma ñëwee sa kër man. fekkee wu ma ne moom mu mel ni jéem a tëb bëgg ñoom yoon quoi. dafa bëgg jaar yoon di jaay jaar ko jël mm-hmm. gis nga nit bu nekkee ci waar bi di ko doxal. Mm-hmm. am na yu bëri du am mm-hmm. am joto parce que mënoo mënoo mënoo liggéey boole liggéey. ak wax ak toog di waxtaan. man dama su ma xëyee. bu ñu toog di waxtaan. maa ngi dugg ci terrain bi. di ko ñàkkante. des fois damay damay damay dem ba sama transport jeex. Mhm. ma sol sama capuchon. Mhm. dugg ci biis yi. Mhm. mel ni doomu aadama dugg ci car rapide. dugg ci njaga njaay dugg ci kalandoo yi. di def sama liggéey parce que damay liggéey te kenn jàppale wu. dëgg la man ak ñoom bokkuñu yoon. ok samay nawle lan ma respecté trop. artiste parcelle artiste Sénégal yëpp. ñëpp samay xarit la nag di nga daje daal su ma la déggee ci sa kaw kàddu mooy yéen ñaar yi yow ak ñoom yéen a yeewandoo fa mais bokkuleen leen yoon boo xamante ni moom ngeen di jaar. bokkuñu yoon. ok ñi dañuy aw ne. Mhm. man ma aw ne. Mhm. des sama yoon yàlla di ma dimbale. Mhm. ñoom nag ñu toog di nelaw. ok maanaam daal lañ naan que que oto ba ca kanam la ñuy corné loolu la ñuy corné yow quoi ba tey ba tey aussi euh, man moom li moom sama question la man maa la ko bëgg a laaj. Euh, waaw dama la gis lu fenn parce que dama nekkul ci liggéey bi dama nekkoon ci célibataire mhm. parce que dama def procès procès album laa def mhm. du single de mhm. depuis cuwaaxaa procès album laa def producteur ñëwul dara sponsor ñëwul man maay débrouiller ak sumay fans sumay fans yi nga xam ne problème bu ma am des damay toog ba dëgër ma jékki-jékki moo benn xarit nag waa xarit maa ngi fi dëgër na de lii lii laa bëgg mu ne ma ah ma bëgg kat mën ma ko def tey mais suba dinaa la ko defal man ñooñu man samay fan si ñu may jàpp xaar ba tey da may baal mais man <laughs> noonu su ma ko déggee mhm. euh, man ma gis euh, ma xujje di ànd mel ni Pape mhm. ah, di ànd ak naanaan yu mag ci réew mi tey mhm. ah di am problème problème yooyu man daf may jàpp quoi mais xam nga xam man dafa ki nga xam ne mënu ma laaj bugguma sonal kenn ci dara yàlla xam ne ne problème bu ma am bu ma demee ci ñaar wala ñett ñu fa ma ko su ma demee ci Pape Diouf na ko Pape man de damay def léegi léegi léegi def na ma lii mu lijjantil ma ko ci saa saase. dama bëgg ma sonal kenn mm-hmm. dama bëgg lépp. ok mooy liggéey ndimbal na ca fekk loxol borom. très bien. kàddu yi rafet na kon lii leer na. ba tey mu ngi mu ngi noonu Diop tey loolu la. daanaan daanaan la nag te des fois buy dugg sa koñ doo ko yëg. non dafa bandi parce que man gis naa ko. non buy dugg sa koñ doo ko saa yi muy ñëw sa kër boobu fekk na mu def la muy def ba pare. boobu gis naa ko boobu gis naa la. waaw waaw waaw mais nag kontaan man moom sa fan la man moom man de buñ la koy wax sax buñ la koy wax sax man fi ma toog ndeysaan damay am problème. dëgg fa yàlla xam nga. bëgg a baax mais ñu gën a rafetalaat. ok mu gën ma ko jël. Sénégal moom ah. boo defee nii mm-hmm. ñu ne lee. Mm-hmm. nga wax lee mm-hmm. ñu ne lee. loo mën di def. dañuy wax nekk ci rek nekk ci rek. acca mu ngi noonu ba tey yéen a ngi ci seen spécial plateau réservé pour les jeunes talents tey nag yaakaar naa débat bi ngeen fi gis tey yaakaar naa ne seen xol sedd na li ngeen ci bëggoon tamit yaakaar naa am ngeen ko ndax euh, buzz am na fi te xam naa ne bu ngeen ko dégloo di ngeen xam ne euh, buzz am na fi euh, ci noonu nag laay jaaree di ci nuyu ñi nga xamante ni ñoo di waa Betty Fashion ñu nga fële ca néegi wakaam di gën ñoom it di def ay sañse yu baax ak ay parfum yu baax yoo xamante ni si namatuma ko daal maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen ah, ba tey Makhoudia lan nga bëgg instant bi nii comme producteurs yi euh, ñëwaguñu ah gars yi nga xamante ni ñoom ñoo war a jàpp ci liggéey bi ñëwaguñu fi mu toll nii Mokhtar lan la bëgg ci album lan lay xaar euh, instant bi instant bi xam nga kan laay woo. Hmm. président de la république du Sénégal. daj dëpp gi. muy daj dëpp gi sama yaay Marème Faye Sall. Euh. bëgg naa na nga gëstu El Hadj Moussa parce que sonn naa de. Hmm. boo leen ko waxee sonn naa bu ma leen ko waxul sonn naa. Hmm. jàpp leen ci nag recevoir leen ma. jox ma rek eh, mais yoonu yoonu Angleterre bi nag war naa war naa mën a gaaw ndax loolu moom xam naa ne buzz lay doon. parce que hmm. bu ah mais Angleterre man maa ko moom. waaw loolu am na Angleterre fa laa juddoo. Hmm. ah man Angleterre laa juddoo donc ñoom Mokho Diop borom Angleterre borom pomme de terre le milliardaire le grand danseur de Sénégal le populaire né pour plaire dégg loolu xanaa. waxaatal waxaatal. Mokho Diop waaw danseur. Hmm. borom Angleterre. borom pomme de terre. le jeune maa ngi leen gis Mokho I am from Senegal I want to improve my career by going every part in the world do my best to reach my goal. demagoon de. man la ah, foog nga tekkil ma ko ci olof. <laughs> man la non wuy ma. non man la non li nga fi wax moom. mënoo mënoo demee noonu foog nga tekkil ma ko ci man la man la waaw ba tey yow la léegi tekkil ma loolu ci olof. man la Mokho Dia Angleterre terre pataas. Mokho Dia borom Angleterre borom pomme de terre le jeune milliardaire le grand danseur du Sénégal le populaire nekkul Ah. I want to improve my career. waaw man xam nga lu ma jaaxal xam nga lu ma jaaxal la jeune milliardaire ba pare di woote ndimbal man ma jaaxal. Ahmed la jeune milliardaire nit ku ne xanaa xamoon ne milliardaire la. ah imagine trois xaalis bi nga jot a am ñun sa àdduna ñaata la. ah boobu moom moo ko dajale woon moom. Ah, yéen mën naa toogal foofu fale toogal foofu mën naa ah, toogal fale. milliardaire laa de milliardaire laa mais damaa bëgg ngeen jàppale ma mais milliardaire dañ koy jàppale bàyyi ma waaye man gëm naa li mu wax rek gëm naa li nga wax ah? parce que moom li may gis ngay sol moom milliardaire yi rek ñoo koy sol. ah non non non man naan nga moom man moom dama bëgg yére. comme man incha allah waaw dafa mel ni nag ci ci sañse ngay jox yow nag dafa mel ni yaa yaa dimbaliwul sa bopp loolu waa gars yi jox nga def nga dem jënd ko yére. am na comme benn xarit bu ma koy wax ba ci démb rek dama gis ma yor ay mbuus def ci benn veste ak ñaari simis ak tubéy mu ne yow xaalis boo am jëloon ko yéene moom ko doo am dara. <laughs> yow rek ay am dara nag. ba tey mu noonu moo xujjee instant bi nag ñu ngi ci di waaj jeexal euh, li nga xamante ni si moo di seen spécial plateau réservé pour le jeunes talents euh, tey nag su ma la laajee lan nga xam ci El bi nga xamante ni jamono ji mu ngi tukkal àdduna lan nga ñu ciy wax ñu ànd nag ak suñu DG Alaaji Lo ah Lo Siré Mathia Ndam euh, ak soxnaam suñu baax si nga xamante ni moo di Siste Zeyna nga xamante ni moom it la puissance lañ koy woowee liggéey bi nice na. Mhm. dëgg yàlla parce que maa ngi toog sama kër mu may dal. dëgg la dëgg yàlla maa ngi nuyu tamit alaaji. Mhm. moom suma grand bu baax la. Mhm. moom dafa nekk référence. nekk liggéeykat. nekk jàmbaar. fi ngeen ko jàpp fii rek la. parce que gars yi ñu ngi leen di bàyyi xel de. buñ ko waxee buñ ko waxul ñu ngi leen bàyyi xel yéen ngi ci seen kaw. instant bii kay ñu ngi ci xam nga yow fi mu toll nii concurrence su danse bi mais fi mu toll nii ñu ngi ci concurrence su gars yi de. non yéen a waaw taasu taasul ma loolu taasul ma loolu xew gi. ma ne yéen a xew ci jamono yéen a fii paaj. waaw yëngal jamono defar jamono moom la ñu ko xamee. Eh, mooy fii liñ paaj wax leen mooy fii liñ paaj. El Vision mooy fii paaj. waxal mooy fii paaj. El Vision mooy fii paaj. xoolal. damaa yéeram ku leen bañ seen noon du nelaw eh. dindil la nga defoon na ca gën yàlla noppi na seen bax yi wër na àdduna ba mel ni élection resto commune département bi ñëpp leen di seetaan kay seetaan télé gis ni ma def ak ni ma ko defee kay seetaan télé yéen ko déggandoo kaa leen seetaan émission émission def ak ni mu ko defee tey nag yaakaar naa moom kay ah tey moom spécial plateau lañ am comme ni naa la nee naa la mhm. man boo ma boo ma wooyee ba ma ñëw ci kër gi. Hmm. du ma nekk di nenga nenga. non xam naa loolu tey moom. lii rek ci yoon bi ci yoon bi rek. parce que ñun Sénégal moo baaxoo. Hmm. ñu xamutoon di xam. dëgg la ñu doon di xamal. Hmm. mais damay gis des fois ñuy invité yéen gars yi ñu toog di mat ay. di di yërëmtalu di yërëmtalu doxul doxul société bi. te nag moom metti di leen koy wax. non da nga wax lu am solo parce que à chaque fois yéenay nekk ci écran bi ñu di leen gis. mais au fond li nekk ci suuf sénégalais yi leen di seetaan ak bitim réew ñëpp ñi leen seetaan xamuñu ko. donc li def ciy baax ngeen ñëw taxaw wax li nga xamante ni si moom ngeen di dund nit ñi mën koo xam di leen ci bàyyi xel ci loolu. dëgg la parce que aar bi moo metti. billaay dafa metti. aar bi dafa metti trop trop trop trop trop buñ ko waxee buñ ko waxul dafa metti. mais comme seen classe bi. yéen a ciy jàpp. ñu dimbale xam des fois ñu tëgg ay soirée ngeen ñëw mm-hmm. des fois ñu def ay clip mm-hmm. am problème mu paas woo leen ngeen jox ñu paas ñu dem jëli ji suñu wërsëg mm-hmm. ñëw tëdd jàpp suñu ñàmb adduna bi noonu la mais nag buñ jàkkaarloo télévision bi waa adduna bi duñu seetaan ñuy wax ndimbal nga ñëw jàppale ñu maa ngi nuyu leen suma benn jigéen Adja Sène ak Galo Mbaye ak non di ñëw di nga ñëw ci dóor xaaral rek ma ñëw yow di nga ñëw ci dóor yi fi mu toll xaw nañoo xaw waxtu waa ngi dem waaye nag mën nañu fi waxtaan ak tuuti ci benn mbir ndax dafa mel ni Makhoudia Diome euh, temps yi sa waay dafa ñeme boîte torop fan yi foo dégg ñu ne Makhoudia mu nga fay créé di joué di ma Makhoudia lu tax loolu waa parce que ñu arab yi lañ am ñun mënuñu leneen lu dul tëgg ak way ak fecc ak taasu mais nag ma ko jël soo bëggee def carrière bëgg a génne album bëgg chaque jour ñu dégg la ci boîte yi ma ko jaañu boîte sàngam ma ko jaañu boîte sàngam est-ce que di nga am concentration pour liggéey ci li nga xamante ni mooy li ñuy li ñuy li ñuy xaar ci ma ko mais loolu mooy liggéey bi. Mhm. parce que ñun bu ñu toogee suñu kër defuñu daal dem répétition wala dem dem génn entraînement ñoo tëdd defuñu daal mais am na ay projets yi am na ay bagages yi nga xam ñun ñëpp dañoo yaakaar mhm. njaboot bi gaa ngi toog mhm. waajur yaa ngi toog. mbokk yaa ngi toog xarit yaa toog kenn ku ne dañuy yaakaar ne ñu nga àdduna ak lu ci biir mhm. di ñu woo di ñu def ay diñu diñu wër di wër ci ñu nëbbal lu ñu yor ñu koy yóbbu suñu poste di leen ko jox mhm. mais dafa baax nag boo demee ba fecc amatu ma ci pour que mhm. yaakaar naa ne fecckat buy fecc ci Sénégal xam nga alaaji moo ko jur waykat buy ci Sénégal feccal naa la kii kon dafa baax souvent su ma demee nag doon moo ko bu bees mën naa taasu di lancer ay messages yi nga xam ne parce que taasuma comme taasu ay na góoreeg. ay mboroxe mboroxeeg ay damay wax tem. kon dafa mel ni ay taasu na góoreeg na mboroxe mborox yooyu. waaw man man de ba tey xaalis ACT la sama single bi def na cuxaaxa. def na gum na quatre ans xaw ma trois ans. non nañ taxaw ci loolu sànq na góor yeeg loolu pourquoi nga bëgg a def ne euh, ay ay gaz ACT la. parce que day xew rek xew yi bu ñëwee. yéen ah ah. day ñëw instant bii da xew. turki turki moo ko ak maytul ma sonor nooy maytoo sonor. mais déglu woon man dafa am benn affaire aussi yu ma remarqué ci ñoom fecckat yi. Uh-huh, uh-huh. surtout naa léegi ñoom ñëpp bi ñuy ñëw bi ñu leen di xam ci fecc lañ leen xamee. Uh-huh. mais léegi dama seetlu ni ñoom ñëpp. bëgg nañ doon ay waykat. ay waykat mais nag fecc bi dafa doxatul wala. surtout dañ leen di xeeb ci ci ci ci biir moo tax ngeen bëgg. mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax rek. way man de sama bopp laa xam man ku gis moo ngi dox sama côté. maa ngi fekkee Pape Diop muy neex. Mm. di tukki partout dans le monde mu ma yóbbu fu ne. waaye dañu laa gis man man moom lu jaaral quoi. mais nekkul ci liggéey bi. nekkoon ci liggéey bi rek. mais Makhoudia nekkoo ci liggéey bi Makhoudia da nga naan yaa ngi woon ci boîte yi di dóor di di di di. comme ni ko waxee sànq. mooy liggéey bi non waaw mais non liggéey bi ñun liggéey bi ñu lay xaaree mooy Makhoudia ak album mu ñëw ne liggéey baa ngi nii. mais ci loolu laa nekk mais mooy moo amagul. trois ans rek laa dëgg de boobu léegi. waaw ak ak ak xaw ma man man man man mii fan sax waaw man mii fan sax damaa xaar maa waa maa waa la xaar. mais célibataire génn na turki turki génn na semaine bi passée. waaw mais yow ah turki turki ak célibataire da nga koo génnee pour man di doxantoog moom ci boîte yi di ci dóor. waaw mais ba tey loolu tamit dëgg na. pour lan loolu. sa liggéey ak album bi ñuy xaar ma ko jëm mu ne ma ko jëm loolu. mais ci la bëggee passé carrière mais album bi dëggul ma am de album la moo koy génne album bi dañuy def ay trente millions. Hmm. waaw bu am trente millions. xarit waxu jë da man man man man man man man man man loolu dégg naa soxna waaw man moom dégg naa ko. ah man nag bu dëgg yàlla man aw ma aw ma soxna mais benn gel moom am naa ko moom c'était. dëgg la ñeme nga koo tudd. ah ba si. yaa tuddal eh. yaa ngi rek tuddal rek. bébé je t'aime. waxuma bébé de. on dépense kii am dans l'eau. wuy lim la laaj wuy lim la laaj. waaw waaye xale waaye moom. waxuma quand je suis né de toi mon cœur est à toi. waxuma loolu de wuy lim la laaj. sama bébé. waaw turam rek laa bëgg a dégg man. moo ko jëlee tudd. Ah, bon ba tey mu ngi noonu kon nag. émission yéen ñi ko dëggandoo nag ah. def leen ba tey seen émission mu ngi jëm ci jeex ma ko jël sa kàddu gu mujj lan lay doon. sama kàddu gu mujj mooy kontaan naa ci yéen. Mhm. liggéey bi rafet na. Mhm. question yi teg na ci yoon. nii la. Mhm. di leen encouragé. di leen félicité. di wax nag Sénégal. maa ngi ñëw ak yeneen bagage di nuyu fan si yëpp nag. di nuyu sama yaay ak sama papa Pape Diouf génération conscience. <laughs> maa ngi leen di nuyu. fan si. waaw jëndee lépp yéen a ko moom. acca Diome defal kàddu bu mujj gi ñu tàggatoo ba beneen yoon. waaw xanaa di kontaan rek ci ñi ñuy bëggee saa su ne fii ci seen seen vision média. Mhm. di kontaan ci yéen rek bis bu ne dañuy jéem def dara loo xamante ne nii dañ leen mën a satisfaire. Mhm. boobu léegi ñu ngi ci nag. Mhm. jaa ngeen jëf. kon rafet na macha allah mu ngi noonu tey nag loolu lañ leen indiloon ci seen émission spéciale plateau réservé pour les jeunes talents tey ñu da ngeen jurgi jurgi waaw ba tey ñu àndandoo jurgi jurgi di jeexale ko tey nag ah. ma ñu àndoon ci ak Alaaji Lo Siré Mathia Ndam moo nekkoon ci koy siyaar baax a baax di ko ñaanal jàmm sama maquilleuse bu ñaawal bi sister Zeyna Lo madame Lo maa ngi koy bëgg bu baax a baax di ko siyaar ah, ki nga xamante mooy directrice programme bi aussi Awa Alain maa ngi koy nuyu moom it di ko béggee bu baax a baax miss euh, sister secrétaire général euh, Awa Awa la Tigresse maa ngi koy béggee moom tey baax a baax mu ngi noonu tey loolu moo nekkoon seen émission spéciale plateau réservé pour les jeunes talents ñu ngi leen di jox beneen rendez-vous acal nañ curki curki ana Awa ana Awa Alain Awa Alain acal ay waay curki curki ca curki curki ca curki ah, curki curki curki curki curki Turkey, turkey. Turkey, turkey.